kaay kaay kaay yow toog yow mënoo wàcc di <laughs> mooy yéen yow da nga a wàcc yow ku bees la déglu leen fecckat bu bees la fecckat bu bees la yow euh, euh, pare na. <laughs> mais xasaa fàtte nga ne sax man nga invité. man te li ma fàtte yëpp daa bari de man fàtte naa ne yow takkagoo micro <laughs> léegi léegi pagaay xam nu ñuy def. waaw euh, Grégoire léegi seere ma ak kii pagaay demal taxaw ne la. ok demal ne kaay. maa ngi ii cool. cool. jërëjëf seere ma ak kii ay jalaay seere ma kii ndax ñu mën a euh, yëg euh, yeggale ak ki nga xam ne moo di Pagaye. waaye yow yow bi gis nga ko. ah bi nga def noonu. Hmm. ah. gis naa ko pourtant. waaw maa yow Aïcha gi nga tëñax kii bi euh, garab bi yaa ko tey wala lan la doon. maa ko tey de sama mënin la rek. ah. sama mënin la ak. da ah, xaw a vulgaire nag yow wax na la ngaa vulgaire. Hmm, ñu ko ma sax. mais yow fecckat lëmbal yi bari nañ de mais bi nga ñëwee da mark marqué sa empreinte de. dama koo mën xëcaa. Ah. di ko def ñëpp di ko gis. tursew ma ko àbbu ma ko jàngu ma ko. da nga ko mën ñëw carrément mën ko di ko def. yow mi bien sûr pourquoi pas du yaa ngi gis tout le yaa ngi koy gis ci réseaux sociaux yi mu ngi circulé nice. wala problème yow kon su ma la ko tëggaloon nii di nga dem. ma ànd ak yow rek ñu dem ba mu neex. yaa ko teree neex. bu ma tëñax nag de. garaawul. waaw bu ma tëñax man damaa ragal ay tëñax. léegi. urat kan kogon sa sa gan kan wuyaay. eh yow bàyyi la kay ni ma taxawal loolu ah. waaw. suuf bi biir ne woon naa. taxaw yi da ngay taxaw wallaay doo dem doo dem waaye ñu ngi siyaare bu baax a baax am mbégte ak bànneex encore in fois de plus da nga doon naan da nga mën lëmbal rek tey gis nga ko la jaaxal de yow. man musuma wax loolu bàyyil boo amee lu la neex wala émotion yu bëri nga may sosal. lu tax ma mel noonu man. yow noonu nga mel parce que ki nga invité sax fàtte nga ko. ma xam naa loolu mel noonu man.